moo ngi wuyoo ci turu Ibrahima Kane di seet ci sëriñ Bara Mbacke ibnu Xaadim Rasul moom nag dañu ko faat ci guddig aljuma jàpp samedi bi weesu ca Touba Mbacke lu ñu mel nag moo ngi am ginnaaw bi mu jugee Mbacke Bawol dal jaar ci benn supérette bu ñu sukkandiku ci l'observateur ba joxe xabaar bi moom Ibrahima Kane daal di indi coow lu rëy ca boobule boutique di jël ay saaga jëmale ko ca ña nga xam ne ñooy client ya duggoon ca bërëb boobule ci noonu le bii di Mame Mor Thiam dugg ci coow li ngir daal di dalal ki nga xam ni moo di sëtu Sëriñ Baara boobule waaye mujj caa man dara ba coow li demee ba daal ëppi loxo. ci la Mor Thiam difficile euh, boobu nga xam ni moo doon saytu euh, kaaraangeek euh, boobu supérette dal di koy forcé ngir mu génn ca boobu la boutique ci la Ibrahima Kane daal di cay opposé wu te noonu ca leen jàppante Mor Thiam daal di koy saañob korfañ mu daal di mujjee perdre connaissance gannaaw ba mu ximiliko ci la daal di dellu ca këram ba ñu xëyee ca la tàmbale nag di jàmbat biir buy métti ca noonu la ko mbokk yee jëlee yóbbu ko hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba ci bërëb boobu nag ca la mujjee ñàkk bakkanam gannaaw ba xabaar ba yégee ca way takk der ya nga xam ni ñoo fare ca guy mbind di ab quartier bu nekk ca Touba Mbacké ci lan daal di dem jëli vigile bi di Mor Thiam ngir daal di koy déglu gannaaw ba ñu dégloo Mor Thiam moom milee teggiwul dara ci la ñu koy toppee maanaam faat nit ci ak ñàkk tayeef Ibrahima kan daal dinañ koy jébbal boromam niki démb gannaaw ba ñu jullee timis ba pare ci sëgi bàq ya jërë ngeen jëf biir yi dawul coow di Ousmane Sonko yanati na coowul ne coow bay Macky Sall ak waa këram gile l'observateur ne nañu coowal suuf la ak tuumay nju njaaj ubbil yéenekaay bi njiital parti Pastef di Ousmane Sonko kitaabu na ci àqulaay taalam ne juróom-ñaar fukki famille militaire ak juróom-ñeent yi ñu jële ca terme sud pexe ñoo Macky la te dara sababu ko lu dul ak bëgge ak ngàppaaral ko fuqale gu ñu def ci wàllu suuf Sonko yamu ca ne ba muy wax na ne na immeuble yu bari yu nekk ci centre-ville bi Macky jaay na leen baleem njëg gi damu ci poosam source nañu direction de l'Elawas l'éducation ministère de la culture fa ñu ne woon ak barrière de liste di tax mi jano ak assemblée nationale yii ñooy immeuble yi Ousmane Sonko ne nguur gi fi nekk jaay nañu leen la tribune jàppee ko ab dil bu ñu nasee ca kaw waaye feeñ na Ousmane Sonko ak Guy Marius Sagna ñoo jéebaane njaaj gi gii la ñu a dégg keroog mu ne li tax état bi bëgg a teg loxo suufa terme gi bëgg ko ngar dajjo moo di dafa am mbébatu tabax fa ñetti junniy appartement ak ñaari téeméer yu nekk ci dëkk bi Macky mi ngi leen di jaay Vox Populi nañu Ousmane Sonko ko Macky ko ci napp la ñuy mafia Walfadjri ca quartier Terme Sud ga Wakaam mafia d'état la la Sénégal nañu Ousmane sulli na dil bu ngande bu mu ne moo am ca Terme Sud ak ci infrastructure publique yi nekk ci dëkk bi mu wax ne projet zéro bidonville bi tax état bi bëgg a teg loxo ci fukki hectares suuf ak juróom ya nekk ca tex mu sud ga ca wakaam Macky ak waa këram jaay nañu ba jaay tax ma jàkkaarloog assemblée nationale mu di wax jooj Yaya Abdoul Kane directeur patrimoine bâti de l'état weddi na ko mi ngi xam ne ci xët mu njëkk Vox Populi ne loolee Ousmane Sonko di wax dara du ca dëgg état bi jaayul benn immeuble immeuble yi muy wax dañu leen a jël jox koy privé ngir ñu doxal ci ay projet yoo xam ne dañu ciy am état bi am ci mu di opération yu tënku ci dooleel li muy wax fan la ko jëlee fan la ko déggee waaye bu wax wax nañu ko lu amoon ca wakkaam weer yi la ñu génn mu di douanier bi ñuy tuumal ne dafa reyoon doomam ju jigéen ju toll ci juróom-benn yet l'observateur ne nañu moom colonel des douanes boobee di Mouhamadou Sall ak ëllëgëm ci wàllu yoon ma ci loxoy doyen des juges ne procureur de la république di Serigne Bassirou Gueye nuppi na ci yëf yi ba sisir doyen des juges colonel des douanes bi di Mouhamadou Sall yéenekaay bi di l'observateur bind ne mi ngi ciw yoon wutali chambre dem ci sonal enquête Kër Massar gi ñu bëgg a defub département la mu ca njëkk a gis moo di wax ko ni mu yombee jëfee ko du yombee noonee Amadou Sène ci a ngoon ci la maxub amical Sénégal ak Mauritanie yéen bi nañu ginnaaw duma yu rëy yi leen waa Maroc dóor keroog ñetti bal ci benn leen rek moo leen dese ñoom gunay Aliou Cissé yi mu di gagné maxub tey bi ngir dëggal seen bopp stade yéen feelu ko wax ne Sénégal Mauritanie tey ci 19h la derby la bu nar a tàng jër ca kees. dox sa dox nekk ci say mbiru bopp te dara du la ump ci réew meeg ci àdduna si application Sénégal set indil na leen ko waaw waaw Apple Store ak Android nga koy téléchargé ci sa iPhone sa smartphone sa tablette mbaa lépp luy portable bu mucc ayib rek te méngoog doxalinu jamono xeetu xibaar bu mu mën doon nag politique. tàggat yaram xew-xewu jamono ak fu mu mën a xewee ci réew meeg ci bitim réew noonu nga koy yégee ci saasi ak ci itte bu mu la mën a fekk nag àndal ak Sénégal set muy application booy téléchargé rek presse en ligne indil la beneen melo bu la tàggaleek coono nde Sénégal 7 nee na la presse en ligne autrement